seen chronique de la semaine réewum Sénégal amal ñetteelu alternance ci nguurub président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw bi ñu ko amale woon ci atum 2000 ci njiital président Abdoulaye Wade ak parti démocratique sénégalais ginnaaw ñaar fukki at ak juróom denn yu mu opposé wu daal di nangu nguur gi ci loxooy socialiste yi nga xam ne yore nañ ko diirub ñeent fukki at ñu amal ñaareelu alternance ci atum 2012 ginnaaw ba ki nga xam ne moo nekkoon ci ñi ko gën a jege bañ fal ko ndombal tànk yu baree bëri mooy kii daal di nanguwaat nguur gi ci ay loxoom moom président Abdoulaye Wade. Sénégal am ñaareelu alternance ci weeru mars 2012 njiit réew bi président Macky Sall daal di wéy di jiite Sénégal ba ci weexu mars 2024 ñu am ñetteelu alternance njiit lu yees lii di président Bassirou Diomaye Diakhar fay defagum ci boppum réewum Sénégal lu toll ci. ñaar fukki fan ak juróom benn ginnaaw ci ñaari fan ci weerum avril lañ ko daal di fal mu daal di def li ñu naan prestation de serment daal di waat commencé di dérouler tabbu gouvernement am jël ca bopp ba teg fa kii di sonk mu doon jiitu jëwriñ yi moom nag génnam bu njëkk mu amal ko ci dëkk bu seele bi di Touba teg ci Tiwaawan waaye génnam bu njëkk ci senegal mu ngi ko amal ci réew moxitani daal di seeti njiitu réew bu Mauritanie di Mohamed Ould Ghazouani nekk itam njiitu Union africain ñaareelu génnam mu ngi ko amal ci réewum Gambie seeti président aadama Barrow ginnaaw gi nag ajuma ju ñu weesu mu amal jullik juma ci jumaay Omarien yi bu mu sa jógee nag daal di seeti ñii di waa jàngu bi gisee ak kii di monseigneur Benjamin Ndiaye moom njiit réew bu yees bi le amal fi ñetti conseil de ministre moom président Bassirou Diomaye Diakhar fay ñaari conseil de ministre yi njëkk yi nag ñu bëri doon xaar ay coppite ci yenn bërëb waaye gisuñu ko waaye ci ñettali conseil du ministre bu mu amal nag seetlu nañ ci lu tolloog seet nomination maanaam fukk ak juróom-ñaar ci ay poste yoo xam ne nominé nañ fa ay nit moo xam fu ci mel ni port fu ci mel ni RTS gi nga xam ne sax jur na coow ginnaaw taskatu xabaar bii di Pape Alé Niang mi nga xam ne tabb nañ ko fa loolu nag ñu bëri ci Sénégal yi ku nekk rek am na noo ko gisee ba ci ñenn ci ay taskatu xabaar sax di critiquer di xam ne ne kile di Pape Alé Niang fi ñu ko tabbu mérito wu ko wante moom taskatu xabaar bii di pap Alé Niang juddoo ci Thiaroye ci Dakar moom moome nag mu ngi jàngee ci université Cheikh Anta Diop ba am diplôme am naka noonu nag si la jaar ci ëttug tàggatookaay taskatu xabaar yi nga xam ne mooy institut supérieur des sciences de l'information et de la communication di ISEC moom Pape Alé Niang journaliste boobu door métier tasum xabaar ci atum 2007 jaar ci presse écrit jaar ci rajo fu ci mel ni Sud FM li ñu naan wàllum revue de presse bi ñuy amal léegi mooy ki ko njëkk a door moom pap Alé nekk ci 2STV nekkoon fa rédacteur en chef ci fàttali 2STV gii mooy première seen télévision privée fii ci senegal mu bokk itam ci kuréelu taskatu xabaar yi ñuy tuddee ay journaliste de investigation fii ci dénduk Afrique de l'Ouest gi moom kii di pap Alé Niang moom itam bind fi ab téere di wax lu jëm ci doxalinuk nguuru Sénégal ci ni nga xam ne jàpp na ne jaarut yoon moom kii di taskatu xabaar boobee nag yàgg def liggéeyam ci ñuy jëbëri jàpp ne mu ngi koy amal ci anam gu mucc ayib moom nag ginnaaw bi ñu ko tabee mu jur coow ki waxtaan waaye itam mu jur ay mbóot yu suleeku ci kër gi di RTS ñenn ñi di ñaawlu doxalino njiit la woon di Racine Talla mi nga xam ne jàpp nañ lépp juróom benn fukki journaliste di lu tolloog 60 journaliste yoo xamante ni ba ci ay technicien daleen leen daal di yóbbu frigo maanaam lépp dara waralu ko lurut ñàkk déggoo ak kii di njiit la di Racine ci ay doxalinam wante itam ñii di syndicaliste yi di xam ne ne moom mii di Racine Talla de oto yi nga xam ne joxoon nañ ko kër gile di RTS ngir ñu amalee ko seeni activité moom Racine mii de da koo jaay mu doon ay mbuxum yoo xam ne jamono jii ñu ngi koy fesal ci kër gile di RTS waaye moom Pape Alé Niang ak li koy xaar bëri lool ndax itam bokk na ci doxalinu RTS mi nga xam ne Sénégal yi dañoo jàpp ne moo moomeelu état la ba tax na état bi képp moom lay wane ñu ngi xaar Sénégal yëpp ku nekk daal di ci gis boppam. moom njiitu réew bu yees bi di président ci Diomaye Diakhar fay nag nomination yooyu nag bi mu amee jur na coow itam ci mbedd mi ndax nag ñu bëri dañoo jàpp ne moom de lam doon campagne ak li mu waxoon ci programme am dafa waroo ndax nag ay poste dañoo xam ne woon ne lu jëm ci appel à candidature dañ koy amal te gis nañ ñu bëri ñu ñu nominé te lu nu mel amul ñenn jàpp ne. bokk na ci erreur yu njëkk a def moom njiit lu yees lii di président Bassirou Diomaye fay waaye itam mu bokk ci li koy xaar mooy dund gi ñu daal di koy wàññi donte ko joxe na délai askan wi yëpp jamono jii di xaar lu nu mel dina amam déet waaye mu bokk ci jafe-jafe ci ndox ci biir réewum senegal ba tax na sax fu ci mel ni Touba ak yeneen i bërëb wante itam ndox bi nga xam ne mooy ndaxu taw bi te lii di nawet bi ay weer kepp des ñu daal di ca yegg muy jafe yoo xam ne ñu ngi xaar nguur gu yees waaye itam mu bokk ci soppiwaat li nga xam ne moo di système judiciaire bi waaye defaraat lii di institution yi ba gën koo jubbanti waaye bokk na itam ci nomination bi nga xam ne moom mii di général Martin Faye moo wuutu kii di général Moussa Fall mi nekkoon ci boppu gendarmerie yi loolu itam ñenn ñi am nañ ci ay xalaat yu wuute ku nekk rek di ci wax na nga jàngatee mbir mi bu ñenn ñi jàppee ne doxalin bu ñakkas ba mu amal ca bopp gendarmerie di général Moussa Fall moo tax ñu jëlee ko fa ñenn ñi jàpp ne moom général bi dee liggéey bu mu ci ayib la fa amal wante nguur gii de dana noonoo ak moom ndax nag yu bëri yu dox seen diggante rawatina lu ci mel ni manifestation yi fi amoon diggante 2021 ba ci 2024 gi moom njiit réew bu yees bii nag di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jamono ji itam ñuy xaar ni ci moom lu bëree bëri démb nag ci samedi gi mu amal ab séminaire gouvernemental moom nag bokk na ci la nga xam ne moo di slogan bu yees ba mu indi mooy jubal jubbanti mu daal di sàkkuwaat ci gouvernement boobee ñu fexe ba li nga xam ne moom la Sénégal yi di xaar ci ñoom ñu daal di koy matale gouvernement bu yes bi itam bokk na ci acte yi mu njëkk a teg fexe ba lu jëm ci wàllum liggéey bi ci réewum Sénégal jaarale ko ci ministère ñu dénk fonction publique fexe ba waxtu liggéey yi nga xam ne moom la ñi di secteur public bi ñu daal di ko respecté ba lu jëm ci wàllum pointage ñu daal di ko amal loolu nag war a door niki suba ci altine gi yemoo ak 29 avril 2024 mooy fexe ba képp koo xam ne dañ laa daal di dénk liggéey muy ab ndombal tànk ngay xëy heure di wàcc heure maanaam 8 ba 17 heures diggante boobu nag am nga ci noppalu lu toll ci waxtu lu ko dooree 13 heures 30 jàpp 14 heures 30 wante itam lu jëm ci système pointage boobu itam am na ay contrôle lu jëm ci ay caméra de surveillance wante boo ñëwee daal di teg ca loxo ci machine bi ñu xam ne xëy nga waaye bu wàcc jotee itam ñu xam ne yow mi le wàcc nga ku ñëwut itam dinañ xam ne liggéey si woo moom jiit réew bu yees bi nag jamono jile donte ka lu bëree bëri bëgg-bëggam la wante ba tey ji amagul benn dogal bu ñu teg ngir rek askanu Sénégal mën cee dut baaraam donte ka ñenn ñi ñu ngay ñaxtu ñenn ñi di xultu ba si ñi nga xam ne sax ñoom lañ àndatoon ci campagne bi ba daal di gañe lii di élection yi ñu bëree bëri ñu ngi xaar ñu daal di leen récompenser maanaam jox leen ay ndombal tànk wante ba tey jii lu nu mel amagul askanu Sénégal nag di xaar li nga xam ne moom lañ leen diggoon muy rupture gannaaw bañ doon amal seen campagne maanaam soppi coppi li goo xamante ni du bokk dara ak ñi fi nekkoon li nga xam ne noonu lañ doon jiite lii di réewum Sénégal ci fàttali moom jiit lu yees li de di président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñaar fukki fan ak juróom benn képp la defagum ci bopp réew mi jamono ji nag lu bëree bari di ko xaar ci ak soppite yoo xam ne daar daar ci bopp réewum Sénégal ànd ko ak njiitu jëwriñ Ousmane sonk mi nga xam ne mooy ki porté candidaturam ba tey jii yàlla teg ko ci bopp réewum Sénégal